أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant suñu borom ñoo ngi koy baax di ko xëy di julli sëlmal ci ab yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo ngi ñaan suñu borom mu jëkkee doon ci waa xéwal ci kaw yonente boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain delluwaat nañ ci ron keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonente bi alayhi salaatu wa salaam sunu jiw bii weesu ñoo ngi nekkoon ci dundu as-saxaabi al-jaliil Abdullahi ibni Mas'ud saxaaba mag boobu nga xam ne moom lañ doon woowee Abdullahi ibni Mas'ud mbokk yi xam ngeen ne Abdullahi ibni Mas'ud waxtaanee dundam mooy waxtaanal gone yi ndax li ko waral mooy Abdullahi Abdullahi ibni Abbas Abdullah ibn Abbas waxtaanee dundam mooy waxtaanal gone yi la ko sabab mooy liñ koy naawee moom Abdullah ibn Abbas nga xam ne lépp lu génn xam-xam li ko ko yàlla jénk booba tuut tànk la woon loolu dama am benn yëg-yëg muy courant boo xam ne koy defaat ci ndaw bi mooy mu yëg ni moom ndekete kat ak góorgóorlu loolu lu ne mën na leen dal loolu lu am pour la ndaw la yéen nag amaa yéen dina ndax dañuy yaakaar jàpp ni ah lii de mënu ma koo am ndax nangam ak nangam waaye su fekkee déglu nga bindu ko mel ne Abdoulaye bi ne Abda nga xam ne taw nit yi ko suñu borom defal li mu ko koy defal pour tànk la di ndaw di nga daal di amaat suxuur amaat yéegéeg ah ñi man kat ndekete war na maa mën a mel gone ndax kii kat gone la Abdoulaye na suuf si Abdoulaye na Abbas di leen taw nit di ko suñu borom defaloon ci sàkku xam-xam te moo fekk ndaw la daal di ci at ak nangam maa ngi foog ni mbooloo mi nu tiim ñi ci ëppal fukki at may na kon jamono ji Abdoulaye na Abbas di ma tàmbalee mel na muy mel boobu ci at yi rek la doon at yu tuuti yi waaye nag nit ki saa su ko gëmee xam ko jëm xam la bëgg xam la ñuy wut borom gën na ko defal tawfiq ci kàttanam ba mu am la muy yóotu sunu biñ réeree ñu gisoon ngeen àll lépp ci lenn ci yi nga xamante ni mooy Abdoulaye ibn Abbas ak ñaan ko yonente bi ñaanoon alayhi salaatu wa salaam ak jiital li ko suñu borom defaloon ci wàllu xam-xam tey ñu ngi continué ci bunt bii di ibadatuhu radiyallahu anhu nan la meloon moom Abdoulaye ibn Abbas ci jaamu yàlla mbokk yi xam ngeen ni jàng siiratu salaf bokk na ci li ci ëpp solo mooy nit ñi xam ñoom fan la seen ragal yàlla xolloo fan la seen mën a jaamu yàlla xolloo fan la seen jub xolloo fan la seen dëkku tolloo ak fan la seen jëf la ci tolloo la xam ni day kenn ku ci nekk ci ñun boo wéetee nga xalaat li nga xam ne nit ñi mel nii jag ragal yàlla ci sell gis yonent bi alayhi salatu wasalaam fekkee sa gawaat yi am ngërëmal yonent bi su fekkee ñoo mën a toll fii ci jaamu yàlla comme ñun ñi nga xam ni amatuñu ngërëmal yonent bi alayhi salatu wasalaam fekkeewuñ benn xare tawleewuñ ak jamono du gën suñu jamono jii maanaam li nga xam ne mooy ay jumtukaay yi tax nit texe yii yëpp ñoom ñu amoon ñu amuñu ko benn maa ngi yaakaar ni kon góorgóorlu ñun la war a gën a wax ibni abi mulayka mooy nit li nee na dama àndoon ak Abdoulaye ibni Abbas benn bis ñu jógee Makka dem Madina nee na bokk na ci li ma seetlu mooy saa bu guddi jotee rek dafa mel ni ku ñuy yeexal allahu akbar nii la salafu saalex meloon mu ne bu guddi jotee day mel ni ku ñuy yeexal yeexal gi mooy lan mooy dafay bàyyi ba ñu toog su ko defee kenn ku ci nekk tëdd bëgg a tëdd mooy mu tëdd ko lépp gis nga saa yi ñu xamoon ni ñuy wutee ci yàlla te ñu xamoon ni ñuy mooy doon gis sànna ku nekk mu laal ci yàlla mu teg sa xalaat mu ne di wane man nga dinaa jug ci guddi gi déedéet ñu ñu dañuy lal mu lal comme ñoom ñu taal leen ko taal leen ñu taal ko taal ko fas yéene nu mu ko jëmale ba yàlla nekk déedéet day yeesal nit ñi waaw waaw boo delloo ci yére benn ci ma soxwa ah الجماعة من الجوزي من قيده من النار ولما يصير على من بلا إمام الزاهد من قيده من النار كده كده كان فقام لنا كيان الصغنة في الدردش صغنة لنا مرسي يكون لا يجل باب الجوية لعلا فقام الصغنة نقض كله كيان اليوم والد الوقت إمام الزاهد لم تتعلم مني أه فلقنا يوم ndax nit naka la mën a defee jaam yàlla nëpp ko ba nëpp soxnaa ci génn di ko wax nit ñi déedéet kon ki ngay yëg ne naa am nañu daan def loola da ngay réeral sa nit ñi rek ndax bañ gis daal waaye yow la ak a wax nit ndax ñoom noonu lañ doon réeral na fee nit ñi di nëpp seen jaam yàlla yéen am naa ñu xam naa suñu bàyyee ko ci ñu xaaj rek ah li bi daal di mu lekk nee na mag ñi daal di koy seetlooy fekkati ci la commencé di gis gis nga mbokk yi julli guddi moom ci jamono ju yàgg bi ba tey ci mboolem dars yi fi am ci fekk beeg xayat saxaaba yaa ci quran ba pour demal ci yegg rek yàgg naa wax ni buntu la boo xam ñii raw ñëpp ca la ñu rawee ñii raw ñëpp ca la ñu rawee bàyyi boobu lu dëgg yow kete yàlla kete kooku waxut du ko xam dëgg ni mu neexee lan yi ni mu nooyee mbaaj yi ni mu yubbee ah ndox mi ni mu seetee kenn porté wu la te boo ko déglu kenn du la wax dara te soo paree bokk nga ci dëpp la ñaari kàddu yii di jàng ci bànneex ci alquran ndax inna naasi'ata layli hiya ashaddu rat'an wa aqwamu qiila wallaay yow ci sa jëmmi bopp yaay dëkk yëg ni yow fi ne am na lu lu la dugg da ngay dëkk yëg ni am na lu la dugg lu bokk ak la nga na nga meloon maanaam kii keneen la ko def yow te loolu nag moom laaj leen ko def kat ñi koy def ñoom xam nañ ko bu baax min la dugg salaat ila yowmina hada yéen a mu daal di jug ci jàng benn nit ma teewlu ko bàyyi ko xel ndax ñoom it ñi di daawul tefe te gis ñuy góorgóor def dañuy daal lépp di leen seetlu ndax mën a roy ci ñoom jaamu yàlla nee na xam naa man foog maa ngi nelaw fekk nelaw mu ndeke mi ngi jàng aaya ji di wa jaaratul mawti bil xaq ko suñu borom mu ne wa jaa ak yegg si na tey nag sakratul mawti sukkuraati dee li ko la fekk suñu borom ni yow jeexal nga de pare nga wa jaa ak yegg si na sakratul mawti sukkuraatu dee yow ay certa la fi dese léegi nag daalika maa kunta minhu taxiir li nga doon diis di dala ka nekk sànq buñ koy wax sax nga bëgg nit ñi noppi ndax bëggoo ko ko wax mu ni mbir ma yegg si na nee na bi loolu amee ci la daal di taxaw mu Abdullah ibn Abbas allahu akbar muy di baamtu aaya jooju di jooy ma di ko déglu muy baamtu aaya ji di jooy ma di ko déglu muy baamtu aaya ji di jooy allahu akbar si guddi ci xolam bi ñuy daje julli guddi ci jooyal yàlla sellal ga lëbbatu ga allahu akbar nee na loolu man fekkee naa ko imaam nee na ibn Abbas dafa am feebar bu tàbbi woon ci bët yi daan ndox la moo xam ne bu tàbbee ci bët gën dafay yàq bët nee na bi loolu amee nee na Abdoulaye bin Abbas bët yi commencé gëm xam ngeen Abdoulaye bin Abbas ci mu jësal bi gëm dafa jël ma xawoon moo tax gars yi naa ko ah waaw yow moom si ndox yi moom moom lay na waa mu ñu am ci metti leer gi nekkoon ci sama bët yi moom la yàlla jël ñu ne ma waaye nag alhamdulilah leer gi newoon ci xol bi muy xam-xam bi ba léegi muy xam. nee na moo ci kat bët yi. dinaa loolu dama ko gëj a dégg sax comme ndax mi ngi amal déet ñu ngi koy def bàcc bàcc bàcc bët bàcc kat bët yi. ah bu la déggee baalu mer moo ci kat bët yi. daal di ñëw ñu ko dañoo bëgg a mocc bi sa bët yi. waaye nag buñ ko moccee doo julli doo mën a julli parce que dëgg gaal yooyu la koy may li nga toog kon ay fan maanaam ci gàttal daal di doon juróomi fan yoo xamante ne doo ko julli ko Abdoulaye ibn Abbas nee na bu fekkee ni ni wér gi nar naa am te ci ñàkk julli la nar a jaare ko du ma leen déglu la ca teg mu ne in neefa déglu annahu man taraka salatan waxidatan mutaammidan laqiya allaha azza wa jalla wa huwa alayhi sabba nee na bu dee ñàkk julli gi mooy tax ba ñuy wér ma xam ne du wér ndax man ñetti nañ ma ni kenn julli kese ku ko bàyyi te yaa ko tey boo dajee yàlla yëgal ni yàlla mer na la jeex na la bëggu ci yow dara sa wàll la dara ak noppi ku bàyyi benn julli te tey ko nga dajee suñu borom mu jébbi la ba du la xool waaw ku def julli moom bu dajeeg moom nu muy def dana ma jaaxal lool kon Abdoulaye ibn Abbas maa ngi tontu waa ji loolu kon lii li muy wane rek mooy mu ragalat yàlla la bu mënoon ay jaamu yàlla la lii leer na la ci rek waaye boo delloo ci téere téere yi lu mel ni ëpp soxum ibn Jawzi bi ah da nga ciy fekk ay buntu yu mu lay wan ni mu ragalee woon yàlla ak ni mu mënee woon jaamu yàlla bu may woon fer dara radiallahu anhu gis nga mu daan dugg ci wanag ah day am problème sax ndax aj ay yére ndax nee na dama rus sama borom ba rus sama borom gis ma doonte maa ci biir wanag sax daf yaram neen boobu da xanaa daf ñuy fàttali Ousmane ibn Affan radiallahu anhu dama rus sama borom ba rus sax nekk ci wanag yi ku teeku sama borom di ma gis fekk maa ngi ku teeku laa shakka ni hada xaayatu xayaa ah lii nag wax dëgg yàlla bala am gerte ba nag mën a yem. moo tax yéen sablam nee na ngëm yàlla ak gerte ñoom ñaar ay doomi lay lañ bu dee rek beneen dee bu ci dee rek ay jeex lañ bu dee beneen dee benn bëgg sax dee ngëm yàlla ak gerte ngay am bu yàlla yëkkatee bii ba mu bi rek day yëkkati ba ca des. moo tax dañoo xal xayaa la yati illa bi xayr gerte daal du ëndi lu dul aw yiw waaye Abdoulaye ibn Abbas mbokk yi kaana mutawaadi'a allahu akbar Abdoulaye ibn Abbas ku ku ku xoyof la woon bu xoyof ndeysaan ak am solo mbokk yi yàlla dénk la ay ndombay tànk moom dénk la xam-xam bu nga sut nit ñi ah yu ma aadama lu ko yàlla ëppale nit ñi rek mu commencé di leen ko wax bu dikkee di jaay nit ñi yàlla gën a xam yàlla gën a dégg luga yàlla gën a dégg fiq yàlla gën a dégg xadiis yooyu amul sax yooyu wan ko wan ko yàlla subhanahu wa taala waaye bu ko wan jàng allahu akbar boo xam ni borom subhanahu da koy dénk ay norme yi baax wala mu dénk ko xam-xam waaye da koy xoyof wàcce boppam suufeel boppam ba da nga yaakaar ni kii du moom la yàlla dénk lii ne ko Abdoulaye ibn Abbas nga xam dafa yoroo teew ci xaaru yonente bi alayhi salaatu wa salaam ibn Burayda daal aslami nee na benn waay daf doon joteeg Abdoulaye ibn Abbas xam ko allahu akbar xam nga nit ñi day dal nag noo mën a mel nag am ku la cokkaat Abdoulaye ibn Abbas boobu waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gën a dégg alquran ci xeet bi su fekkente ni moom la ñuy cokkaat di ko wax mbokk yi kon bàyyiwul kenn waaye xoolal kii tey jokkaat yi ñu ko jokkaat bu ko yëgal loo xam ne dañu ko xaar wallahi ka ko jokkaat kon tey alkaale dana waaye waa ji ñu ko jokkaatee wax koy wax ba noppi Abdoulaye ibn Abbas ni ko yaa ngi may xamte yaa ngi may saagane waaye du ma fayu yaa ngi may xamte yaa ngi may saagane du ma fayu ndax ñi ngi may melal di melu ma ni man naa la wax ay melokaan yoo xam ne mi ngi ci man am naa ñetti melokaan li ci nekk mooy man de dinaa romb leen aaya ci alquran ma yëg ci cap ba boo xam ni maa ngi tëb a katal ndax aaya bi ni ma duggee ni ma neexee li may débét mooy xakka neexoon ci li yëpp xam ni ma xam ndax ni bànneexu comme ni may bànneexoo loolu mooy wane ne yéen naa ñëpp yiw te yow ci ñi ma yéen yiw allahu akbar mbokk yi lii nu mënulu ko lii nu mënulu ko mu teg ci ni ko man na naa dégg benn julit àttekat ci julit ñi mu àtte ab àtte ma dégg àtte ba àtte ba jub te maandu dama cay kontaan te di ko ñaanal ci moom yëgul ni sax maa ngi koy ñaanal te soxla wu mu yëg ko yeneen bi ci def nee danaa toog ba mu yàgg ñu ne dëkk sàngam de nawet ba baax na ren mu ni ma kontaan mel ni dama baa amee tool te aw wax sax mbokk allahu akbar mbokk yi mbokk yi hada la yaqul mbokk yi gis nga ku gëm yàlla saa boo nee ba nag sa bopp yi bi yéene sa bopp moom yéene sa bopp juri ahibba linnaas kama tuhibbu li nafsik dégg naa saalum kat seen nawet ren yi baax muy dama ci kontaan kontaan ngeen ni ku ko am ay tool te awlu ba sax mbokk ma loolu li koy waral mooy yéene sa bopp li nga yéene sa mbokkum jullit ci yaakaar na ne kenn du ko saaga mbaa di waxante bu muy fay bokk na ci mooy bu xetoon la moom Abdullah ibn Abbas maanaam bokk na ci yi nga xamante ni yàlla baaxee woon na ko nee na saa su ma déggee sama mbokkum jullit wax ci man lu ñaaw nee na su ma déggee sama mbokkum jullit wax ci man lu ñaaw nee na su boobaa ñetti taxawaay yi laay am ci moom wallahi mbokk yi di jëf yi jàngalekat bu mag ci ñun ñëpp waroon nañ ko déglu nii la ko imam yi dina jaw ji di faram fàcce ko sama sax moom nga xam ne mooy ci téere bi gën a dajale ci buntu boobu nee na saa su ma déggee sama bopp mbir lu ñaaw mu wax ma ko saa su def ko ko mu ne su boobaa lii mooy nekk sama position nee na su ma ko xoolee gis ni kat moo ma sut garaat ci yàlla bu dee xam-xam moo ma ko ëppale bu dee diine moo ma ko ëppale bu dee ragal yàlla moo ma ko ëppale su boobaa dama koy xormaalee loola ñaanal ko yàlla moom bu daal nee na su ma ko xoolee gis ni sama naat la ma ne ko kon xaaral ma jéem a jóg ci kër la man du ma fayantoog yow maa yow ñoo tolloo woon waaye fi ne maa ngi lay bëgg a raw ndax ku mag nga mën a ñaaw rek man du ma la wax kon xaaral ma gaaw raw la nee na su fekkente ni maa ngi ko sut garaat dama naan kii jëluma yàq sama temps parce que damay mel ni moom kon dama mën a du ma du ma tourné waat allahu akbar mbokk yi wallaay gis ngeen li ñu doon lëflante wala mais li ñuy wax nag ñaari loxo ñooy tàcc wax nañ dëgg de benn lam du yëngatu mukk mukk benn lam ci loxo du yëngatu doomu aadama bu dikkoon andi histoire am du jeex yow nga teer noo ko salaaman salaaman day géey ci am na ñaaw ci bi ci yow ñëw ci moom wàññ ko wàccuwaay bi mooy li ma leen doon jox misaal ci suñu wax yéene baax ñun da ngay xamal ci téeméeri tiyaaba nga xamal ko benn bu bon benn bu bon rek nga bëgg yàq téeméeri tiyaaba yéene ci moom dëgg la benn bu bon ba lu bon la danañ ko ca yedd danañ ko ca waar danañ ko ci jib danañ ko ca mere waaye bu mu tax ñu sol ko ci mbuus àll ci ko fel parce que ñun baax la ëpp lu bon leen imaamu Zara bi nee na bu ñuy lii nga bëgg a doxalee ñëpp ngay tànn doo ànd ak kenn ak wax dëgg kon melokaan yii moom la doon jëflante woon Abdallah ibn Abbas waaye xeraanu bu ma jóg jóg naka la dëggoo woon àddina ak ni mu tawee woon xam ngeen mbokk yi Abdallah ibn Abbas même bu bëriwul alal sax yàlla war a dëggal na ko taw bàyyi na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemul ca loola waaye ku ñu ormaal la man amay ñu xam wax xam ngeen ni bi mu faroon ci xilaafa yi doomi saxaaba yi sax dafa leen wutaloon salaire doomi saxaaba yi sa bàyyi sa bàyyi demoon na ba dañ koy wutal salaire gis nga fayu salaire ci lislaam bi ñu tàmbali jox lañ ñu xam sa bàyyi demoon na ba dañ koy fay salaire ah yow sa bàyyi demoon na ba waaye sa bàyyi nekk bi yaa ngi nekk yow dañ lay fay salaire parce que sa bàyyi ah allahu akbar lii damay retraite sa bàyyi ma demoon Badar baax na waaye yow ñu ngi lay fay yow lu tax parce que sa bàyyi dafa liggéey loo xamante ni tey bu yëf yi neexee bañ koy nootee tey ñoom ñoo tuuroon seen xeer Abdoulaye ibn Abbas nee na man de ma jël leen na kër këru julit nekk këru julit yor leen seen dund àjjuma ba àjjuma bi jël wala ma jël leen na këru julit yor leen seen dund weeru lëmm nee na moo ma gënal man aji daaw aji waat allahu akbar alhajju lmabruru ala taalamuuna anna laysa lahu jazaau illa aljanna yéen yàlla bi nee na aj bu yàlla nangu fayam moom mooy dugg ajana rek amul passeport amul visa dugg rek lay def dem daal mu ni ma yoral leen ak benn këru ñu ne dépense ci ba nit ba jëlu ci baa weer moo ma gënal aj ah nee na ma fekk sama mbokkum julit ma dimbale ko ngir yàlla moo ma gën a jël samay kiinaan yu bari dugal ko fi sabilillah so xal ne ne Ibn Abbas nee na keroog bi ñu bëggee dërëm dërëm a jiraa xam nga dëkkoon xam na ay nguur dëkk xam na ñu bëri xam ay xaalis yi doon am nee na keroog bi ñu bëggee xaalis Iblis dama jël xaalis yi te ko ma teg ko ci diggante xatal beeg bët bi di ko xool ni ko yow yaay daw lu sawar yoon di wax ni ko yow moom soxla naa la yàggatul naa nga ñëw ak wax dëgg xaalis biñ ko defaree mu ne Iblis da ko yëkkati teg ko ci diggante bët yi bakkan yi di ko xool danaa ko yaay ndaw lu sawar a yoon yow pour la yoon di ko def aw ko xaga wax wallahi ñaari mbokk yi jullit yu def nii jàppante ngir yàlla ba nga jàpp ñaari génne bi aajana ngay génn boo ko doon xaalis léegi rek ko ci léegi léegi rek mën na ko yàq gis nga ñu mel noonu moo tax Iblis ko nee na Iblis daal ni di ka udxilu naasa naara wa bi ka xaqwa wa bi ka xaqu kafri nee na yow dërëm day yow dërëm di aaraame nga ma nit ni ko lu tax mu ni dinaa fexe fexe fexe ba yéebaloo nit ci yow laay jaar dinaa fexe ba xeebloo nit du xam boppam rëy rëylu te nekk ci yow laay jaar waaye dinaa fexe ba tàmbal nit saman ci yow laay jaar mu ni raditu min ibni aadama bi xubbi dunya an yaabudani dërëm ni ko waa man de gërëm naa doomu aadama yi buñ dee jaamu yàlla man nañ ma jaamu rek man ak wax xam na ñuy jaamu dërëm kon yàlla ne saa yi abdu dinaar saa yi abdu dirham am na koo xam ne dërëm lay jaamu am koo xam ne dinaar lay jaamu kii franc franc lay jaamu kii CFA lay jaamu kii euro lay jaamu allahu akbar ak wax am na ñoo xam ne tey ak jaam mooy koo xam ne lu mu la laaj rek la jox amul di baar amul naag bu baar amul dara amul lu mu la laaj rek ko jox lii ñeen dina dugg rek damaa Abdoulaye ibn Abbas nee na saa boo déggatee nit ki wax soo déggee nit ki wax bul xool nag jàng na wala jàngul wala nangam déglul la muy wax rek lii nag tax muy inna rajula la yatakallamu bil hikmati wa laysa bi hakim léegi nga dégg benn waay wax wax bi ñëpp ñu xam fulla te waa ji bind xalaat la dul dara xam naa mooy misaal bi lañ leen jox naan rek da ngeen fan yi passé dañ wax ni doon ko wax naan ab dox dañuy waa ragaan yéen léegeen biyee di tàngal di naan di seddal di naan ah wax dëgg ñu dem dafa ko wax muy waa ragaan ngay liggéey ndax dañuy tàngal di naan tàngal ba mu tàng bir yéeg si nit ki lu tàng bir pare jënd ñu ko garaat ñu ko bind ci kaw da ngay génne ñaar yi baaxul ci biir yaram te man am na fa ko wax di tàngal di naan di seddal di naan léegeen biyee moo tax nekk nekkee xekk ma dana génne ci dugg xaj yi xekk ma dana génne ci dugg xaj yi loolu moom suñu laaj bi lay laaj muy wolof rek defe naa liggéey bi dégg ñu daal yu bare bare léegi nit wax wax joo xam ni subhanallah da nga naan kii wi lii fu mu ko xalaatee ba di ko wax moo tax mu ñu déglul rek ndax léeg-léeg mën ngaa gis benn waay bu xaaj ci xeer ni ko fépp mu dal moom dëgg mu dal parce que fekk moo ne wax bi jibut rek daa daje rek daa tombé li wala bi naan tombé waral ay daa kon léegi doomu aadama bu mu xeet leen bu mu xeet leen imam Shafii daa toog di jàngale ba mu yàgg mu seen benn paa di ñëw rek mu daal di banque banque bi ñu ne ko kii kan la mu ngi sama sëriñ ba ñu ne ko yow kii boo jàngee ci ci daa xam dara mu ne moo ma la wax ni xaj bu góor bu dee ba toll ci nag mu kan la suy tàll yëkkati benn baax ñu loolu xaw ma ko te bi ma ko waxee léegi xam-xam la ma tax ma boole ko ma ñaanal samay sëriñ mu ne ko bu tawaa baax est ce que ñun am nañ fayas bu doy noonu nit ki benn kalima bi ngay istipaaloo sa mbokku ngir sa sëriñ la ci loolu jëriñu ko ci moom waaye déedéet kenn ku ci nekk daal da ngay bëgg di gën a xubbali ko di jëm kaw bu ko defee yàlla dina gën a not rek ngay jëm gis nga Abdoulaye ibn Abbas ku xormaaloon li yàlla xormaal la te wa xoqalaha daali wa xoqalahu daali li ko waral moom mooy ku déggoon alquranul karim mbokk yi téere bii di alquran lay yàlla di yëkkati ay nit ba ñu nekk ay tànn inna allaha la yarfau bi hada alkitabi aqwaman wa yadaau bihi axiri axari yeneen bi nee na yàlla dina yëkkati ay nit yu war a doyale ba nekk ay tànn fekk fekk alquran leen ko teg waaye mu suufeel ay nit yu war a nekk ay tànn te fekk doyalal alquran moo leen ko teg Abdoulaye ibn Abbas xam ngeen ni mbokk yi Omar ibn Xattaab bu mu naan am problème day woo xamante ne batal yi ñu ne kaay leen bàyyi leen tam batal yi mu tax nga di wax ah wax Abbas gaa yooyu ah xamante bàyyi ñu leen kaay leen bu ñëwee mu ne nangam di xew na lu ngeen ci xalaat léegi kaay bu ñu dajee di waxtaan bu génnee Abdoulaye ibn Abbas bu romb rek danaa am ay kaay ñëw toog fii ne kay bàyyi loolu neexu leen parce que li tax neexu leen mooy yéen Abdoulaye ibn Abbas wala la ñu ne ay doom lañ am ci kër pourquoi ñuy woo ko léegi muy ñëw di fekkee waxtaan mag yi waaye wala bi nee nañ gone bu loxoom setee day mën a bokk ak mag nga ah gars yi dem ba mu yàgg benn bis ñu ñaxtu ko ne ko xamal ñu xam lii ngay def jaadu mu ne lan laa def ñu ne ko mag yi dem ci waxtaan bi am ay doom bàyyi leen ci kër gi day nekk wala yii di ko indi suñu waxtaan bi loolu jaadu Omar ñu leen bis dana ñëw ma war leen ndax jaadu na wala jaadu Omar bàyyi benn bis rek Abdoulaye ibn Abbas ñëw toog mu ne bàyyi dama bëgg ngeen xam fiiram nag idaa jaa nasrullahi wal fath kii xaaj ci jëm fee kii xaaj ci jëm fële kii xaaj ci jëm fële kii xaaj ku nekk wax ba àggal Omar daal di kenn dina Abdoulaye ibn Abbas yow li bàyyi wax ànd nga tee mu ne ko déedéet mu ne ko lu tax àndoon ñu mu ne ko taar bi daal li ko tënk tënk mooy dana tàggat yéen fii mu jeex loolu ko tax a ñëw idaa jaa nasrullahi wal fath bu dimbalal yàlla liggéey ak sujet wa raayta naas yadxuluna fi diina afwaajan nit ñi di dugg ci diina yàlla ci ay mbooloo ah yonent bi xamal sa bopp yaa ngi bëgg a jeexal kat fasabbih bi hamdi rabbika na nga sàbbaal te sant sa borom ndax moo indi lii wastaghfir bu jéggalu ko ndax yaa ngi waaj a dem innahu kaana tawwab yi ko tafsiré ba noppi nag bàyyi kenn ku ci nekk dara jënd yi ndax façon yi ko tafsiré moo gàtt leer xamal mi ne ñu ngi nii ma ne ko man lu bàyyi moom ci kay wax dëgg yàlla war ngaa mën a xelal la ko bàyyi làmmal ñu commencé di toogal mag ñi léegi nag dëgg yi ma xas am solo léegi gis koo xam ne di ko jox ak lu ëpp la mu am da fekk yàgg yàgg déglu ñu commencé rek la moom képpaan moo tax boo seetloo ku mag yàq ak ku gën a yàq duñ faral di bokk ku mat yar dina am ay téere yi àddina du dal ak xam lu muy wax ak lu muy waxee ak kañ la war a wax kañ la war a noppi yoo xam ne keneen ku dul moom doo ko am gis nga Abdoulaye ibn Abbas keroog bi Ali ibn Abi Talib doon laaj xawaari yi sabara Abdoulaye ibn Abbas dañu ko boo ko tàgg woon doo ko def te bokk yi xam nga Abdoulaye ibn Abbas yàlla dafa def yàq na suuri bi ay mag doon ne koy bu rafet la koy defee nag xam nga Ali ibn Abi Talib xawaari yi dañoo demoon ba daan koy ay yàlla loolu dafa mu leer mer mu jéggi dayoo taal aw sawar rek leen dugal ci biir sëkk bi di sama saay saay bu bon bi daan ne ko la ilaha illallah man nag maa ngi gën a gën digg nag yaay yàlla ndax sama xale kuy bugalaate ba tey amul kuy bugale ci samara yàlla nga kuy bugale ci samara kon nag am na jiw yaa yaay yàlla dinañ naa baat bi waxoon naa la ko waxoon naa la ko lakk ni samara boo ko defee da ngay gën a yokk laay rey leen rek mu jeex rey leen waaye bu leen nag samara te xool lépp ci doon def ak a baax ndax ku def lu bon mun na reyal baax waaye nag maanaam ubbi daal la buntu jaay yi gën a tax ñu ñu ko yaay yàlla mu ne ko lii laa xam defe naa yéen a ngi fàttali ko dund Aïsa radiyallahu anha keroog ba mu demee ca xeer ba ba ñu gis nii man saxaaba yi ku mel Abdoulaye ibn Abbas ku mel Abdoulaye ibn Omar doon la ko wax lu mel noonu boo ñu fàttali woon doo def boo ñu fàttali woon doo def gis nga nga xamoon ne lépp ci day mujj kon ñu mel noonu bokk na ci def yi nga xam ne jikki la Abdoulaye ibn Abbas sa bokk jikki te xam-xam dafay jox nit ci dara ji kawe wallahi yàlla lay kawe قل قل قل شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو والملائكه واولو العلم yàlla nee na seede naa ni maay yàlla gën naa malaaka yi ñu nekk sama seede kaw suuf ba kaw suuf nag mbokk yi yàlla mu xam la sax wa ulul ilmi xool na am jëm mbokk yi xam ngeen ni kuy wut seede seen ji bi lépp am koo jël naa sax ne que du jël am na lu ne ca moom moo tax kenn ku nekk débit bi moo war a tax mu góorgóorlu fexe la mu def ba am xam-xam day yàlla tax na bu dëgëroon la aw lay nag moom Abdoulaye bin Abbas bu dëgëroon la aw lay benn bis benn waaye dafa ñëw daal di koy fekk di ko laaj awalam yaraw anna samawati wal ardi kanata ratlan fa fataqnahuma lu muy dégg ndax booba nit ñaa ngi kenn ku ci nekk mën na day wax ay wax mu ni asamaan bi daa nekkoon lu ñu dégg dégg yaaral dëgër taw daawul wàcc suuf si nekk lu xal lool gàncax doon sax suñu borom daal di dugg asamaan si muy wàccee ndox mu fëlal suuf si muy génne gàncax mu ne loolu mooy fa xataxnaahuma wa jaalna min almaai kulla shayin xay ginnaaw boo xam ne aaya bi dafa jaaxaloon ci jamono lu muy dégg moom Ahmad nee na Abu Wail nee na nga xam ngeen Abu Wail si doom day Abdoulaye ibn Abbas yi la bokkoon Abu Wail nee na am na ak doo xam ni Abdoulaye ibn Abbas doon na firi suuratu nuur mu ni billahi waa Perse sax bu ñu fekkee woon tafsir boobu dana tudd dugg ci islam ndax da cee wax ci ay kéemtaani yàlla loo xam ne loolu dafa dépassé xam doomu aadama loo xam ne maanaam ñëpp du jullit bu ko déggee na mu xoolee ko nga xam ngeen ni Abdoulaye ibn Abbas yi daal suñu borom la woon ci jàngale loolu la koy wane mooy kisa bii di ñëw Habib Malick nee na man de man na maa fekkee Abdoulaye ibn Abbas ci benn jotaay boo xam ne gëm naa ni waa Quraysin biiral Quraysin yëpp buñ amul woon benn valeur bu dul benn jëf yii man nañ koo ndamoo ba Allah xel dem sax allahu akbar kon biir Quraysh buñ amul woon benn ndam bu dul bii may bëgg a tudd man nañ koo ndamoo ba Allah xel dem sax ñu ne ko lan la mu ne benn bis damaa génn gis buntu kër Abdoulaye ibn Abbas feet yàlla yàlla yàlla ak ay nit ñi ñu toog mbooloo mu ne yoon bi sax dañ ko xaare ñeneen ma duggee wax Abdoulaye ibn Abbas ni ko ñooñu la ñuy wëtti mu ne xam-xam la ñuy wëtti mu ne aar na ko xale gi ma jàpp ñu aar ko xale gi mu jàpp bi mu paree mu daal di yónni Abu Waayil ni ko nel mbooloo mi képp kuy laaj mu jëm ci alquran rek la dugg si ku dul laaj alquran mu dugg am mbooloo dugg ba fees ñi alquran façon jàngi façon lu mu wàccee am na wàcc lii ma diix lépp xool jeex na ñu ne waaw mu ni génn leen xajal ñu ne beneen mbooloo dugg si mu ni sax ci lu waay am looy laaj baqara ba naat laaj gaa yi di laaj di laaj ba mbooloo bi jeex ñu doyal ngeen ñu ne waaw mu ni génn leen ñëw ña ngeen mu ni fekk laay ñëw leen xool na kalam fekk lépp comme ci lislaam yëpp nee na mbooloo daanaka dañ koo yendoo ba ngoon li mbooloo mi demee mu ni miiraas ñu am problème miiraas nan dugg si bañ ci ne bu yëpp jeex mu ni même làkku arab lu ko la arabiya siar kuy way même mu ne soo si am jaahiliya sax si yàlla ko waaw looy laaj ñëwal allahu akbar mbokk yi yi moom te abu waaye wax dëgg la mu ni lii mu ne su koo gis ci kenn xam nga lii ma ne su ko gis ci kenn tey boo fàttali ko du am laaj ma ah gërëm tey benn bis rek tey journée aqida man boo def nag loo soxla ci aqida mu jàngal la yéen mu xëy benn journée lay jàpp la moom la rek moom léegi nag daanaka def ak dundam moo tax mu ne lii de bu fekkoon ne ñoom dañ koy ndamoo arab yi ba xaj na tukki nee na musumaa gis maa famaa raaytu misla haada li ahadin min annaas musumaa gis lii mu am ci kenn ci ci nit ñi beneen bi ci topp mooy yéen daan boo xam ne gis nga xam-xam ni mel wallahi mbokk yi xam-xam non subhanallah def tamit ci nekk doomu aadama bu ko xamoon lu mu mën dana bare pour yàgg xam ngeen ni yéen a ngi fàttaliku maanaam imaamul xatib al bagdaadi ci jamono jëm xam ni yëgul yi fexe woon nañ ba créé benn neexal neexal boo xam ne dañ caa def ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen yéen yëgul yi yéen a moom suuf si sa ci madina waaw ñu ngi nii wax ci ay wax benn bi ñu xoolee ànd yi dañoo gis ni lettre bi ak lettre yonente yi yonente bi dañoo nuroo mbind ba ak mbind bi yonente ba yonente doon bindul dañoo nuroo ndax ba ci bañ def ba yëpp nuroo ñoo ñu ko amirul muminin ci jamono jooju ci dawlu abbasiya amirul muminin yi ko jox ko gaay yi yëpp ni ah lii de ak jaax na te yonente bi lam digoon mooy lañ génne yëpp ci Madina lan moo ci fexe te lii leeral yonente bi nag benn waay muus ñi nañ dem dellu ci borom xam-xam fekk jamono jooju moom xam nga Bagdaad yi ma ko xawoon xam ngeen Bagdaad moo nekkoon capitalu islam ci jamono dawlu abbasiya xabibul Bagdaad yi xam ngeen ko imam ju mag la taarix la benn téere boo xam ci téere yi gën a vieux ci àddina bi ci taarix la bokk muy taarix bu Bagdaad boo demee nit ñi dafa dund Ahmad mu xandal nit ñi boo xam ne kéem daal suñu borom ah bi loolu amee ñu indil ko xabibul Bagdaad yi mu téye leetar bi liir ko bi ñu ko liiree ba yekkal ah li jarul yàqu wax li moom ay kàcc la du dëgg te fekk dëkk bi yëpp ñu ci jaaxle ñu ne ko yow moo def ba xam ne ci kàcc la mu ne wóoleen nga ko wax woo mbooloo bi dëkk bi ñu daje ci penc ma biñ dajee ci penc ma dafa yëkkati leetar mu ñu jàng ko ba noppi mu ne waaw ñoom dat biñ ci def dat biñ ci def avant match Makka la après match Makka la peut-être avant match Makka la tuuti dat biñ ci def avant match Makka la tuuti te nee nañ Saad ibnu Muaaz bokk na dañu ko fekkee te Saad ibnu Muaaz dee na avant dat bi ku dee mënta jékki di génne ñu teg gaa yi xam ne boobu moom yàqu ñu ne ak ban mu ne nee nañ Muawiya tamit bokk na ci ñi ko génne mu ne leen Muawiya ginnaaw Fathu Makka la tuub ak yéefar yi naka la fi jullit ñi nekk yeneen bi dem di seeti yéefar yi naan leen kaay génneel ma ko tax Allah di ma jeex mbokk yaakaar naa masala yu mel nii bu gaaw a tey te fekk ko xam-xam lu ci baax lu mel noonu moo tax Abdoulaye di Abbas di teg jamono Ali Abi Talib dafa ko xoole na Ali ak ni mu dëgëree ni mu gëmee yàlla xawaari ci génn nekk ah vingt quatre mille personnes vingt quatre mille personnes mbokk yi vingt quatre mille personnes ak ni ñu bare yi mën a jaamoo yàlla boo ci gis débat yi mel ni oomu jëlee sax mën a gis xawaari ci ñu ne am naa ci yéefar la moo tax ànd ñoom moom dem ca àll ba Ali jaaxle xam ngeen Ali dem na ba ñaan yàlla ci yàlla man fi ne ñii nasal nañ ma ah ma ma jóge ci benn yoon ndax affaire bi ñu nekkee ci moom Abdoulaye ibn Abbas ni ko ah man de boo ma joxee ndigal dinaa dem ci ñoom te bu ma demee ci ñoom bu may ñëw naa indaale sëriñ mu ne ko jox naa la ndigal mu ne ko wan wax ko jot mu ne ko tisbaar yi ko jot mu ne ko fan nga yeexe tisbaar yeexe ko bam naa mooy Ibrahima yéen yàlla di leen di leen di leen saddal xarnu fa abridu yéen yàlla nee na bu tàngoor bi demee ba yéeg di lakk mën ngeen a seeral ci baal bi mu yéeg tuuti nee na ma daal di dugg tànku ba set kaala mu ñaatu sama man sama yat yéen. Abdoulaye Abbas nee na bi ma dikkee maa ngi fekk gaa yi subhanallah koo ci xool dañ koy ñëwee ndax mën a jaamu yàlla. seen bët yaa ngi xonk ndax ay jooy. allahu akbar wax wax man man bi daal ak yéer ni muy def nii. seen jël yaa ngi mel ni oomi jëlee ndax mën naa bi la mu ni ku dugg ci seen biir wala am lan la mooy wax mu ni ku dugg ci seen biir da ngay xees day jaamu yàlla ak koo mën a doon ndax ñoom ñu mel waaye tey kaa ngi tukki na leen nee na bi ma yegg ma ne leen waaw yéen kii goro yàlla bi la ndax may na ko doon mooy alim nabi sall ñaareel mooy ndaw yi muñ dëkk dugg ci lislaam ñetteel mooy xalifa moom lan moo leen métti ci moom ñu ne ko yéefar la yéefar la moo topp ñu ko ñu ne ko lan la nekkee yéefar lan moo leen nekk ci moom ñu ne ñett moo ñu nekk ci moom mooy moom daa war a àtte ci téere yàlla bi lépp ko bu jël ay nit naa leen dem leen ngeen àtte nit ñi war ñoo àtte ci yàlla ak yonente bi nekk loolu mooy lan mais yow yamane Abu Musa al-Ash'ari mu dajeeg Muawiya ngir ñu def benn jalo ba ba soow la ba soow la juddoo dégg naa loolu leeraloon naa ci bindu Ali ibn Abi Talib mu ni kon yàlla moo ne inal hukmu illa lillah yàlla rek moo war a àtte insan moo tax boo jàppee alquran dëgg dañu yaa ci nekk sa way ci nga am aaya boo xam ne day sukki janak moo nga daan di fële in al hukmu illa lillah mu ni boobu ak man ñu ne ko dafa xeer ak ay sama jàpp ko ma gañe ko pourquoi jàpp ko jàpp yóbbu ko mu dem bàyyi ko su fekkee si ni jàppul ni buñ war a jàpp jàpp jël woon muy xeex ak moom kon lu tax jàpp ko mu yóbbu ma xeex naa moom ma gañe ko lu tax mu koy bàyyi mu dem di ñu ne ak lan loolooy métti ak yan ak lan mu ni bokk na ci leen métti mooy li ñu defee accord yi dañoo bind Ali ibn Abi Talib ah mu ni léegi pour man laa dina tax ñu épassé amirul muminin mu ni pourquoi mu koy nangoo épassé na ko doon bu nekkul amirul muminin mooy amirul kafir wax ci xaalis jël na Abdoulaye ibn Abbas ni léegi nag léegi damay tàmbal léegi yéen lii ma leen di toll téere yàlla bi laa koy génne te su ma leen tontoo na ngeen jël ginnaaw gars yi sax nangu sax ndax yàlla def na ormaal nañ ko mu daal taxaw def ko xutbaam ba noppi mu ne waaw su fekkee mbirim àtte ni inal xukmu illa lillah xanaa jàngu leen ba problème amee ci tey suñu borom ni fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqi llahu baynahuma problème am na ci tey suñu borom ni woo leen su xamee ku góor ci kenn àtte kat woo ci xamee ku jigéen ci kenn in yurida islahan su leen defar saxee jóg yuwaffiqi llahu baynahuma kii xakam la ko yàlla tuddee kii xakam la ko yàlla tuddee léegi loolu lu ngeen ko bëgg a def ak aaya bi amul tool amul tool ndax nga amul tool mooy lan doon bañ mooy inal xukmu illa lillah yàlla wàcc asamaan àtte ko moom yi muy def xaw ci ay loxo lay jaar gars yi di tekk mu ne déedéet sax loolu ma tekki de da ngeen di nangu ni am naa ndam ko ba pare ma doog a jàll gars yi di ko wax lii moom nangu rek mu jàll mu ne nee ngeen dafa xeex ak Aïcha ba pare jàpp mu ne léegi damay laaj ndax yéen reconnaître ngeen ni Aïcha ummul muminin la wala déet xam gars yi di annabiyu awla bil muminin wa azwaaju ummahatuhum yàlla moo fi alquran nee na yonent bi moo gën a yey ci képp ku gëm yàlla te ay soxnaam suñuy yaay la nangu ngeen ni seen yaay la wala déet bu ngeen ko nanguwul ay yéebar ngeen te bu ngeen ko nanguwul ndax bëgg ngeen jàpp sa yaay jaar bu ko xorñe ñoom gars yi di nekk mu da ngeen sos ñaar yi da ngeen di wax kan mu ñaar yi ko bon jël leen ci benn gars yi ngeen ko jël ci mën a jël benn mu ne kon nangu ngeen ni ni waaw mu ne ñetteel bi yéen nee ngeen moo dépassé juróom ci amir jumaa yi ñu ne waaw mu ne waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog ba ñuy def sulhul Hudaybiya mu bind Muhammadun rasulullah awata bi maso ni ko déere nangu ñu yaa yonent bi yàlla buñ ko nangu woon duñ def ay accord yonent bi ni épaté leen moo tax ibnu Ali la daa tay tey Ali daa tay sax action bu muy am Ali moo ko fekkee woon yonent bi ne Ali épaté leen sama tur Ali ne ko bu rasulullah du ma ko épaté xanaa nga wuti keneen ku ko épaté yonent bi woo benn waaye ni ko ana ana Muhammad rasulullah xam nga mun wóor yi sallallahu alayhi wa sallam te loolu ci kéem kàddu bi la bokk léegi nag ana Muhammad fan lañ ko bind ñu ne ba mi ngi nii mu évancé ko bokk loolu ca Ali la amee woon. Ali bi biñ gisee ne problème am na toll na ci waxtu bu toll ni beneen bi tolloo mu ne naan évancé juróom mu ne waaw comme bu nekkul amir mu amir kaafi yi léegi yonent bi bu nekkul woon rasulullah kon nan la bokk gars yi teg bu ñu déggee comme moo ko dégg da ngeen naan nangu nag ñu ne nangu nañ mu ne leen mbir maa ngi noonu allahu akbar allahu akbar li muy dem dana ko su may ñëw naan laa la tëri vingt quatre mille personnes la ñu vingt mille personnes yëpp keroog dañoo julli tisbaar vingt mille personnes yëpp dañoo julli tisbaar mu def ah quatre quatre mille subhanallah ñooñu benn mbooloo dañoo koy woon seen dëkk bi sax lañ def ñu jëpp seen i doom ak seen i njaboot seen sant ca àll ah ñaar fukki junni nit yoo xam ne dañoo nekk woon ci yoonu xaaru yeeg dem nga pour ne ñoom andi leen ñu julli tisbaar kooku bu ñëwoon ba àllaa bi rek ñu bàyyi ay yëfam yëpp bàyyi ko bii kese maa ngi yaakaar mu am ñu mën a yóbbaale sax moo tax xam-xam lii la xam-xam bi jëriñ moo tax li mu nekk ci gën a bañ mooy borom xam-xam borom xam-xam la gën a bañ def koo bañ a bañ a bañ a bañ ba bañ ci daanaka moom xamutul lool alaam ibn al-Qayyim rahimahullah ci téere boobu di Miftaahu Daari Saad bu fi ne ca bunt bu yaatu boo xam ni lu ma téeméer ak ñaar ci ay bunt mu ngi koy wax ci wàllu xam-xam waaye bu lay leeral iblis ñi mu bañee borom xam-xam ci ngay xam ne nekkati borom xam-xam la yëg ni amul noonu bu gën a yéeg iblis amul noonu moo tax saa borom xam-xam saa bu lay kontaan ma ci doon leeral yoon yi moo dee daa bëgg ni ñëpp nekk ay yi nasaara su ko defee duñu xam yoon ba ñuy jaar pour daal di tax ba nga xamante ni mooy gërëm xéewal la kon yii dafay soññaat ndaw yi tey ndax yii ñuy waxal lu am baalu rek jaaw def déedéet ndaw la woon à l'âge de douze ans treize quatorze la commencé mel ni mu mel ah nga xamante ni benn waay dañ ko wax ni ko waaw yow lan moo tax demoo jàngi dafa gi saxaaba yi ngay jàng ci gone yi saxaaba yi Abdoulaye ibn Abbas mu ni parce que damaa seetlu masala day ñëw juróom-ñaar fukki saxaaba juutam juróom Abdoulaye ibn Abbas te léeg-léeg ñoom ñëpp dañu ñëw fekk si waat kon loolu taw yëpp la yoo xam ne suñu borom mën ko defal waaye ci ndaw la kon dafay dolliwaat courage bi léegi parce que nangam kenn mënu ko wala kenn mel nii loolu jii dañu war a bàyyee wax li ñu war a gëm mooy njëriñ yàlla mooy maye subhanahu wa taala kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla dafa ñu taw biir yàlla yàlla boole ci leen xam-xam te mu nekk loo xam ne day nekk xojjatan lana la xojjatan alayna wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain